بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما بشرى يوم الخميس بشر الذي بشر خير البشر عليه تسليمه أبقى بشري شكر اله بعد حمد والصلاة على النبي بالمده لي ابقى هلا ومن لامه الخميس لا ينتهي نفسي لغير الأفيد هواية للسبيل قادت يدي côté bi ki dafa wax ne moom du ànd ak dara loo xamante ne biir amul njariñ ndax passion jëmul ci leneen lu dul diiney lislaam tey loxo ma koy wax bi muy bind dëggal na ko xawaaya li sabili xadat fi yadi laki taalibe bi mel ni dañoo nekk ci muharram waaye bu ne muharram ni waat muharram ni lëhu ndeem wax nañ ni ci muharram ci la ñëwee ci muharram ci la dellu kon da ngay mën a wax ni ñaari muharram yi ndax daf ne muharram mun muharramun lahu ko takraar ne muharram waxaat muharram mel ni def ni kon muharramay ñaari muharram yi dem ne nañ ci muharram ci la ñëwee ci la demee bay na laa ilaha illa hu muhammadu rasulullah kon ñaari muharram yëpp yàlla la ñeel ni ko waaw shuhur yëpp weer yëpp ni mu ñeele yàlla xam ngeen ne muharram mooy weeru tamxarit gis ngeen suñu borom ñim ci musale nit li ci xew lepp ci histoire ci l'islam ak ci yonent yi ak wàllu yi l'islam muy weer wi ñëk ci atum yonent ci at yi ñi limé ci weeru ci bi ngir nat ma ci top moy safar wa mudi di gi waaw safar safar ku di julit di mën nañ cee far say ñaawteef ak say bàkkaar ci weeru safar xanaa nu ànd rek waajalandoo màggal gi ci aw waajin ku ne sa sëriñ mën a siggi ku sab sëriñ siggee rek taalibe day siggi ku sab sëriñ sëgg nag moom faaw taalibe sëgg sigg nag daa gën sëgg waaw ci taalibe daw ci yoonu jub wi rek moo waruk taalibe kenn mënul nag yàlla rek moo man waaye nag daf noo booleeg <laughs> ki nga xam ne moo gën a man ah, ki mu jox tey jox ko ëllëg ku tedd ki <laughs> wax dëgg yàlla kay ku soxla barke <laughs> jarul ngay wuti feneen mbaa keneen ah. ndax li am ci moom dafa amul feneen wasalaamu ala man ittabaxal huda